dellu santati seexuna cheikh ahmadou bamba xadim rasul ñaanal bu baax euh, xalifatul am euh, li tarixatil muridiya di cheikh mouhamadul muntaxa mbàkke euh, suñu borom dooli ko fee yàggal bu baax a baax te dooli ko wéral ba mboolem li muy yéene ci liggéeyal ko seexul xadim lépp suñu borom kàttanal ko mu liggéey ba def ci na ko njortam Eh, di ko ñaanal itam mboolem kilifa yoonu murid yëpp tàmbalee ko ci eh, jëwrinam di sëriñ Sidi Mbacke xalifa Cheikh Abdoul Ahad Mbacke eh, di ñaan suñu borom mu doole ko fee yàggal bu baax te doole ko wéral ñaanal ko bu baax itam ki yore kàddoom di Cheikh Mamadou Bassir di suñu wayjur di suñu xarit di suñu soppi ñu ñaan bu baax a baax suñu borom subhaanahu wa taala moom itam mu yàggal ko fi bu baax a baax te wéral ko. Euh, te tak kattanal ko ba mboolem yeneen yi nga xam ne yëpp am na ko ci liggéeyal ko Seexul Xaddiim euh, suñu borom kattanal ko euh, ba yen bi nga xam ne moom la ñu teg ci ay yoxoom mu man cee def lu kawe njortam di ko ñaanal itam suñu baay di suñu xarit muy sëriñ Abdou Samad Mbacké moom sëriñ Sohaybu Mbacké Xaadim Rasul di ñaan suñu borom mu taxawu te kattanal ko te yàggal ko fi bu baax a baax te wéral ko mbokk nag ñu ngi leen di ndokkeel bu baax ci ànd waxtu bu nekk saa su nekk Eh, file ci seen télévision Futurs Médias ci jataay yu am solo yi nga xam ne eh, moom la ñuy waajale bis bu tedd bi nga xam ne moom la ñu dëgmal eh, daanaka ñetti fan rek dox suñu diggante ak 18 safar di fukki fan ak juróom-ñett la woon ci weeru safar fële ca Mbàkke Bari départ des Sud Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jano ak noon bi ngir mën a liggéeyali boromam jaare ko ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam euh, nam ko waxale woon boppam asiru mahal abrari hiina asiru wasannal hida ali hunaka asiru euh, asiru boobu na nga xam ne nag euh, moom la Serigne tan noon ngir dëkkaale ji ak boroomam waaye ànd ak noon yi nga xam ne eh, ñi ci bëri jàppoon nañ sax eh, moom noon bee ko génne waaye Serigne Touba ci boppam moo génne noon bi eh, ndax dafa mel ne ku waroon a génn la ñu jàpp ndalal ko jumtuwaay boo xam ne da ciy mën a jaar ba génn mën a liggéeyal boroomam. loolu moo tax nag télévision Futurs média ni nga xam ne rek noonu la ko def noonu ko doon defee fan yëpp gis ngeen sama soppe sama xarit sas Assane Seck jóge na fi sànq ci suba gi ak jataay yu am solo yooyu nga xam ne. Euh, moom laa àndoon ak yéen Serigne Jili ña ngit euh, suñu soppe gis ngeen jataay yu am solo yi mooy ànd ak yéen euh, soxna Fatou soxna Naata Mbaye ak mboolem personnel bu groupe Futur Média rawatina télévision Futur Média gis ngeen itam ne rajo Futur Média itam kenn demul mu des fële ci RFM ñoom itam ñi ngi amal liggéey bu am solo lépp ngir waajale ko bis bu tedd bi nga xam ne mooy bisub Xaadim Rasul bi nga xam ne toujours dama koy fàttali ci samay wax ne mooy benn bis bi ñu sëriñ bi ma sa soxla ne tey jii nag kaay leen ngeen santale ma suñu borom subhaanahu wa taala eh, ci bis bi nga xam ne li ma ci yàlla jox ci ay xéewal la jiitu lam ma teg ci ay nattu kenn xamul nu mu toll waaye ma ca faye itam eh, kenn xamul nu mu toll moo tax xaadim rasul eh, kaay leen ngeen santale ma suñu borom subhaanahu wa taala loolu mi ngi woon ci atum 1921 sëriñ Balla Fally Dieng amoon ci taxawaay bu am solo ba tey jële màggal gi yegg si fii mu yegg si loolu moo tax kon jataay yu am solo yi nga xam ni moom la ñuy defee ci dëkk bu sell bi li di Touba Mbacké lépp lu ngeen gis rek en directeur la file ci euh, jumaay Touba euh, ci dëkkub Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul euh, di tuubal mahrusa tey ji nag ci jataay yu am solo yooyu ñu am mbégte nag dalal ci suñu gan yu am solo yi nga xam ne kenn ku ci nekk doyan na sëkk sax jataay bi moo xam ci njàngum xasida moo xam ci waxtaanee ku tedd ki di Khadim Rasoul ñu am ci suñu ndeyjoor Serigne Salifou Niang Euh, moom suñu collègue la euh, suñu mag la suñu xarit la suñu lépp la mën naa ni sax suñu directeur la fële ci RFM Mbacké euh, ndax moom Serigne Saliou Niang animateur la fële ci RFM Mbacké moo yore sax desk lise bi foofu la ci RFM Mbacké ñu koy gërëm bu baax di ko sant Euh, di profito di nuyu bu baax a baax euh, suñu collègue yi ñu nekkandool foofu la ci RFM Mbacké rawatina Papa Balla Gueye mi nga xam ne mooy kilifa ga ak euh, mboolem ñi nga xam ne yëpp ñoom la bokk liggéey ba ñoom soxna Njóobaloo ak mbooleem ña bokk waaroo foofu la ci RFM Mbacké di ko gërëm bu baax di ko sant ñu am itam ci suñu càmmooñ sëriñ Moustapha moom waa Rawdu Rayahin ñoo ko fi yebal ci kilifteefu Serigne Mamour Mbacké am di Euh, moom itam ñu war a waxtaan ak moom tomb yi am solo delluwaat ci xasida yi euh, nga xam ne Serigne Touba nee na euh, sama karaama mooy samay xasida karaamati xattu yadi fii xidmatil mu ayyadi wa kaanali bil afyadi allahuma lil karami xasida yooyu njëriñ yi ci nekk li ci nekk ci ay yóbbal li ci nekk loo xam ne lu mën a jariñ ab jullit la rawatina ab taalibe lan moo tax dëgg-dëgg sëriñ bi bind ko lan mooy doole xaside yi ak xikma yi ci nekk yooyu yëpp ñu ko fas yéene waxtaanee ak euh, sëriñ Moustapha Kaay muy tomb yu am solo waaye bu ngeen gisee itam sëriñ Bàcci Diop jànkatu xasaayit bu ñu miin ci dëkk bi ak euh, sëriñ Amsatu Diop xasaayit am itam ci sama ndeyjoor euh, feggoog sëriñ Saliou Niang ñu fas yéene gën a yaatal nag ci wàllu liggéey ak yoonu murit rawatina thème principal bi nga xam ne mooy temu mu màggal gi muy kas bul xalaal di sàkk lu leew loolu itam ñu ci fas yéene dugg euh, gën cee yaatal bu baax a baax euh, loolu ay tomb yu am solo la yoo xam ne buñ ko faram-fàccee fii la ci télévision Futurs Médias yaakaar naa suñu mbokk téléspectateurs yi danañ ci mën a jariñu bu baax a baax euh, sëriñ Saliou ñu bàyyi la nga nuyoo ak mbokk seetaankat yi bu ko defee sëñ mu Moustapha nuyoo suñu jànkatu xas yi nag ñoom dañuy wax ne saxaar bu jubee gaar dafay korne léegi nag sëriñ Bàcci Diop ak euh, sëriñ Amsatu ñoom ñaar nañ waxtaan ba juboo rek ku ci njëkk a yëkkati xasida bu ko defee ka ca des feelu ko ñu mën a enchaîner rek songu tomb bi fas yéene waxtaanee lenn ci sëriñ Touba ci luñ mën a jariñoo sëñ Saliou bisimilah. aouzu billahi min seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi waxda wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baxda raditu anil mawla taala allasi rabba fuaadi wa axnaani wa akrim bihi rabba naajaytuhu bi yaa nasiru yaa wali kafaytani iblisa inda jeewali asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi nuy seetaan ginaaw bu nu sante yàlla julli ci yonantam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen baalu àq te di leen baal àq di jiital ci nuyoo bi xalifa général de Mouride Cheikh mun Mountakha di ñaan sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ba yéeneem ci liggéeyal seexul xadim lépp sunu borom jàppandil ko ko ci wér ak fekke di ñaanal bu baax a baax sunu wasila Seydina Amsatu Mbàkke Soyibu di ñaan sunu borom guddal aw fanam te wéral ko ba yéeneem ci liggéeyal Sëriñ Bamba lépp mu defee ko nam ko soobe te bu yàlla nangoo sunu ñaan fulal nu ko ba mu toll ne peppi suuf yi ak duusi géej ak ndoxam taw mi mu jagleel ko sëñ Mamor ñu ngi lay nuyu ñu ngi ko waxee di sunu xarit di sunu sëriñ ñu bokk liggéey bi ñu am mbégte lool ngir toog ak yow jataay ngir jataay yu ko daan def lu bare bari euh, ñu ngi lay ndokkeel bu baax a baax tamit di la siyaare di siyaare baax sëriñ Amsatu mi moom sax day mel ne moom laa war a njëkk a siyaare ndax <laughs> Amsatu moom day dañuy wax ne béy bu nekk am nga ak déem ay ñun sëñ Amsa mooy sunu dém kon ñu ngi lay siyaare bu baax di sunu wëllëre di siyaare bu baax a baax tamit sëriñ Bàcc Diop moom it di sunu xarit di sunu wëllëre ak Serigne Moustapha mi moom it ñu ngi koy siyaare di ko dalal jàmm na ni ñun ñooy dalal fii sax ñu ngi siyaare ñëpp kon sëñ bi ñu delluwaat la kàddu gi incha allah rabbi jërëjëf. jërëjëf euh, sëñ Saliou yow itam ñu ngi lay ndokkeel bu baax ci weeru tedd wi mu di weeru safar nga xam ne yàgg nga cee yëngu yàgg cee liggéeyal sëriñ bi. loolu itam ñu yàgg koo seede nga dalal ñu ci liggéey bi euh, tey ñu am mbégte toog bokk ak yow plateau bi kon ñu ngi lay gërëm bu baax a baax dina la sant. Euh, sëñ Moustapha ñu bàyyi la nga nuyoo ak euh, a ci waxtaan bi. bismillahi rahmaani rahim. rabbal wara laka almahaamidu fa sall ala alladi man iktafa bihi wa sall. buxjati himmati waqsa matlabi muhammadin wasilati li arabi bi alihi wa sahbi ahli alqadri wa taabiina washrahan li jël sama nuyoo tof ko ci toftal sa nuyoo rek ak euh, nuyoo mbokk yu baax yi yëngu ci xasaayid idi ñoom sëriñ Mbàkke ak sëriñ Amsatu di wax ñëpp rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di la rek man maa ngi fi teew ci comme ni nga ko waxee léegi ci euh, ndigal waa Rawdu Rayaahiin yi nga xam ne Ahmad Badawi moom moo ko jiite. sëriñ euh, sëriñ Mbàkke Abdourahmane jiite commission bi ñu bokk muy commission culturelle bi toftal ca sëriñ Mamour Amdi mi nga xam ni moom moom xam naa moo jokkoo yow. ba tax ñu teew fii alhamdulilah mais lépp rek. di liggéeyal Serigne Touba ku ne am ci côté boo ci jàppee ñu ci sant yàlla bu baax a baax ndax liggéey boo xam ni boo ca jàppee mu dox boo ca jàppul mu dox boo ci jàppee sa teranga la yow ñu ngi koy sant yàlla bu baax a baax di la delloo kàddu Serigne bi jërëjëf. jërëjëf euh, sëñ Moustapha Seydina Amsa euh, Cheikh Seydi Mokhtar Mbacke da daan wax naan saxaar bu jubee gaar day korne. bismillahi وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما حسبنا الله ونعم الوكيل همدت من يحسمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر عمدت من يحسمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر سبحانه ربا عفيسا احتمي بنفسي من البلا ونقمي به أعوذ من هواي واللعين ومن جميع الموسيات كل عين نويت أن أقوم مستسعى بجايعي به سبي صبعا أحمد سيد الورى مصليا حل عيسى توسل لربيا أسأل ربي بجائه النجاة من الرسايا وتناسق البقات لك الورى يا رب عبلي عصما منهم ومن كل بلل ونقما لك جعلت يا حفيظ نفسي وضيحة فأنت دهبا أمسي عبلي ما أهب في داريني وفيما عصمني من العارين وجهت وجهي إليك ربي مع الوسيلة وساك عسبي نجي جنابي من جميع ما يسوء وحنيا في كل ما يوسوس عن نسرف الأعداء طرا بنبي وأهل بدر الكرام نجبي منها لي بدخول ساكنا في حسنك العسين منهم آمنا أنت الذي تحسم من بك احتسما من كل ما يؤومه من النقم لك أموري أبدا أفوض وكل من لك تجالى يرفض وقيتني يا بر كفرا فقني درر آليه وكل فتني كفى أكفى المشركين عني بأهل بدر وتعالى مثلي يا بر كن لي ولا تخجلني دنيا وأخرى وتجاوز عني للمستوى بصلاة وسلام بآله وصحبه على دوام للمصطفى كب صلاة وسلام بآله وصحبه على دوام الرحمن الرحيم wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima هدى إلهي سهزاء ما زاني مسهزاء وبير جهل نساء حسن زال غلميا هدى إلهي سهزا ما ثاني مزهزا وبير جهل نزار nasa nasa la xulamiyaa alxalbu min imtalaa ilman wa xidni xalaa waxad saraftu tixlaa maxlubatan bi salamiya alxalbu min imtala ilman wa xitli xala waxad saraftu tixlaa maxlubatan bi salamiya sabali xayri addalaan muxnin yasub lil alaal walaysa yan'un ixtilaal wala dawaa'il walamiya xiblatul baaxil muxiit te xoodu li an baaxoot wasiratu furaatal wuxoot bi amali wa kalimiyaa salli suwara wali fuadi nawara mubarram min alamiya lam yaruni daawul jasad wala xilan wala asad مبيع ما كساد في البيع أو في السلمية خاد لي الباخي سملان ولي أتيب سملان بخرب مع أملان بمنتخى سلميان ولاية من خبلا عمري على من jërëjëf jërëjëf Seydina Amsatou jërëjëf Serigne Bàcci Diop ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant ci xaside yu am solo yi ngeen yëkkati wax dëgg yàlla am na solo neex na lool tey nag wér na maxaarijul xuruf yi macha allah. Euh, toujours dama koy wax jànkati xasida yi euh, fële ca ndakaaru maa ngi ko doon junj sëñ xaadim kebe di ko wax ne ko li tax njàngum xasida euh, mata sàmmoonteel muy am na naar boo xam ne ma nga ca bitim réew jànkatu xasida bi rek lay déglu mën a xam li sëriñ bi di wax ndax xasida gi jot ci gisu ko te télévision àgg na fu ne ma ne kooku na kon buy jàng xasida yi dafay baax mu sàmmonte ci ak maxaarijul xuruuf ba nga xam ne jànkatu arab bi bu ko déggee rek dina xam li sëñ bi wax loolu daf ci am solo kon ñu ngi leen ciy gërëm bu baax a baax di sant euh, sëñ Moustapha kon dafa mel ne sëñ yi ak sëñ satu ubbil nañ la euh, ndax boo teewee fii ñu war a waxtaanee xaside yi euh, war a waxtaanee itam jubluwaay yi nga xam ne moom la ci sëriñ bi am ndax xasida yi dafa bari ay pàcc bëri na xasida yoo xam ne sëriñ bi da koo bind ci wàllu jihaad julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa fàttaliku suñu borom ak tudd ko sant suñu borom ak gërëm ko. Euh, tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam xasiday ñaan yi euh, xasiday tuub yi mu doon daanaka lu toll ci juróom juróom ñaari tomb yoo xam ne euh, bu ci nekk pàcc bu yaatu sëriñ bi bind na ci ci xasida yi bala ñuy ñëw ci xasida yi njariñ leeg ci wàllu njàng meeg kiy yëkkateeg kiy durus ak saafara seeg li ci nit ki mën a jëre ci njariñ bëggoon naa nga dikkaatal ma jëmmi sëriñ Tuubaa ci boppam ana ban jubluwaay la amoon ba tax mu bind xasida yi alhamdulilah sëriñ Mamour laaj nga laaj bu am solo sëriñ Touba dafa doon koo xam ni yàlla daf koo defal mu am dund gu riche moo tax ginnaawam nga gis gëstukat yi di gëstu ci moom ci wàll gu ne nga mën a gëstu ñoom keneen gëstu ñoom keneen gëstu te ngeen du ngeen bokk sax wàll gi ngeen ko jëlee ku nekk di bind ci moom bindkat yi di ci bind mm. étudiants yi di ci def seeni i seeni seen seeni lépp ndax dunda mi moo mel noonu te waxoon na ko ne woon na xustu xayaan laa tura xayri dama am dund goo xam ni gisuñu keneen ku ko am yàlla defal na ma dund goo xam ni gisuñu keneen ku ko am xasaayid yi nag bokk na li nga xam ni ci ay cëram bu rëy la bu ko yàlla jagle ci ay jagleelam parce que lu jiiti Sëriñ Tuubaa miinuñu woon liñ miin ci moom ci xasida point yu baree bare la yaakaaroon sax danañ xaj mais naa ci indi li fi ma li fi mën a xaj miinuñu woon nit ni man de sama kéemtaan dëgg mooy samay écrit dañ daan miine kéemtaan ci yeneen yi ñu gën a miin waaye moom dañ karaamati xottu yet yi dem ba lu gën a sori foofu sax mu ni xasaid yi min mujizatil muntaqa sama xasida yi dañoo bokk sax maanaam benn parti lañ ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waroon a indi wax la ju xóot ju doy waar joo xam ne du neex a sax waxtaane sallallahu alayhi waaw ndax mu ni sama xasida yi muj bu fekkoon rek dañuy mujizaat la sax day gën ak tam ñu naan moom day wooteeg yonente wala mu delloo ko yonente bi te mu'jizaat yi yonente bi solo sa waroon a indi mm-hmm. nga xam ne dañ ko ci eh, eh, maanaam yàlla daf ko ci jox ab yonent ngir ñu mën koo di ni kii sama jaam maa ko yónni mm-hmm. nee na xasida yi benn partie la ci mu'jizaat yooyu yonente bi solo sa waroon a indi kon bokk na tamit li ko ci dugaloon pour ñëw sa laaj bi mm-hmm. jariñ jaam ak tamit wone tey maanaam dimbal gu ko boroomam dimbali ak wone tey lu ko boromam jagleel te jagleelu ko keneen xasida yi ay point yu bëri yu ci nekk loo xam ni ci Serigne Touba kise lañ ko mës a li jiitoom gisuñu ko après moom it gisuñu ko te ñoom dañuy wax ni maanaam ay xasidaam xasaayam yi kenn duj gis sax njuumte mm-hmm. yaqi qalami sahwa yaqi qalami alxata wa sahwa mm-hmm. mu ni yàlla ci boppam moom moo moom moo soril samay bind luy yàq ak njuumte njuumte mooy loo xam nit ki daf koo def sax ñu xool ni demeewul noonu may jubluwu ko woon sax mu ne loolu sax amul samay xasida lam yanhu lam yanhu qalami fudulun aw kasib mu ni sama xasida yi maanaam ay caaxan amu ci wax lu dul noonu amu ci damay damay laytaayal pour wax ni lépp lu mu waxal boromam rek dafa fekk ne noonu la demee ne wan na wa kulli min laxan bari a sama lépp samay sama lépp dafa denc ay caaxaan dafa sori ay caaxaan xasida yi dafa bokku ci loolu mm-hmm. Mm-hmm. li ko may dayoo boobu ci xasida yi mooy bi muy bind da doon bind ba pare set wecc nee na katabtu wa kulli faaraqa zanba wa shirka mm-hmm. bi may bind damaa bind fekk maa ngi set wecc lépp bépp wàññe wàññeeku buy ñëw ci nit rek dafa fekk nit ka jamono ji wàññe wàññeeku di ñëw ci moom ñuumte gaag yooyu absenté na te abs ñu absence sa diggante ak yàlla bàkkaar la moo tax ñu gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan xëy di jéggalu yàlla ci ngoon si muy jéggalu yàlla parce que maqaama yi day yokk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci suba si ci yoor yoor fa mu tolloon ci bi muy julli tàkkusaan gën na jege yàlla ci diggante bi mhm. ni mu gënee jege yàlla mu daal di gis ni kon moom fi mu tegoon yàlla de te waru ko te mënoon na ko teg fu gën a kawe loolu de ak gàttañ la nga gis muy jéggaluwaat yàlla moo tax lu mu gën a lu gën a dem rek. Mhm. da gis tey loolu tamit da doon feeñ ci bind Serigne Touba mhm. moo tax nga gis ni mbindam yi bi mu koy bi mu koy wax. karaama jooju muy wax ak yooyu ñun tam dañuy bàyyi xel dañuy buñ bàyyi buñ fàtte ni maanaam du xasiida yi ngay moom li fi sëriñ si doon doon doon yëkkati. Mhm. ba ci mbind yi nga xam daf koo jagleeloon nga xam ni ñii sàkku xam-xam la. ci karaama ji la bokk. ndax xattu yet yi bàyyi bàyyiwul dara. te waxoon na tamit loolu li ma ko may mhm. mooy waajah nii tayiidu zil hayzuumi mhm. fi chiari wa nazmi ma alluzuumi mhm. man damaa am sama borom moo ma dëgëral bu may bind moo xam mooy bind ci way wala may bind ci nose ñaaree dañoo wute mm-hmm. xam nga euh, karaama boobu nga wax léegi mm-hmm. dafay feeñ rek ci euh, mm-hmm. sëriñ Balla Faly Dieng uh-huh. euh, bi muy sànku sàkku ci moom ab dénkaat bu jëm ci wàllu teggin mu bind ci nax ju nga xool nax ju la mu ëmb ci ay ci ay ponk ci wàllu teggin kon loolu ba tey dafay feeñ ci karaama day dugg ci uh-huh. mooy yi nga xam daf koo bind ci wàllu teggin uh-huh. yi nga xam daf koo bind ci wàllu tasawuf du mel ni masaal yi nga xam daf koo bind ci wàllu fiq ñoom wax jawharu nafis ak yu ne yu ne mel daf koo bind ci wàllu tawxiid mooy ñoom mawaahibul quddus Mm-hmm. wàllu yaat yooyu tamit ñu bañ koo bàyyi xel ba ci mm-hmm. yooyu tamit ci kara ji liy wane karaama ji la mm-hmm. yooyu xasida euh, pàcc boobu tamit liy wane karaama ji la dama doon wax ni xam nga yooyu euh, xam-xam la yoo xam ne sëriñ bi dafa ko fee fekk sëriñ bi laata muy ñëw borom xam-xam yi jàngale nañ fiq laata muy ñëw borom xam-xam jàngale nañ tasawuf jàngale nañ teggin ak yar googu yooyu nag gu ñëwee wala na wala naxwu tey bu doon comme lu mel ni mhm. euh, kii kii saadatu saadatu tulaab boobu mhm. yooyu fekk na ko fi ba pare mhm. mu jël ko nag woy ko loolu la ñuy wax nazma loolu la ñuy wax nazma ci la bokk ci karaama ji bokk ci nekk nag chiara nag mooy yii yu mel ni tey jazbul qulub muqaddimaat xamitu gi sëñ bi doon jàng yooyu mooy yi nga xam daf koo wax te ci boppam la jóge mhm. yëg-yëgam lay demee ak digganteem ak boromam mhm. yooyu nag ay point yu yaatu yaatu lañ ci mën a jële wesar yi bind na ci ah. ba ci wesar yi mhm. ba ci moo tamit bind na ci lu bare ba moom moom wala majmoa bi majmoul fatawa bi nga xam ne defar nañ ko yaakaar naa année bële waa raw dora yaaxin yooyu yëpp ak laaj yi ñu ko doon laaj fatawaa yi mu di ci tontu yooyu yëpp ay wesar la daan doon yooyu yëpp ak wala waxtaan ak moom rek wax mu mu mu bind ko lettre. mu mm-hmm. bind tontu la ay wesar la daan doon yooyu yëpp macha allah bi moom fàttalee. Mm-hmm. day dugg ci xattu yet yi. Mm-hmm. xattu yet lépp lay bind day jël. loolu fi mu toll mosuñu gis ku ko waxta ku avant Serigne Touba. macha allah loolu rek doyoon na sëkk rek ñu fonk wax séddee Serigne Touba yi. pour gën a dëggal li nga wax. man damay faral di wax. day wax doon wax ju rëy mais man damay bëgg buñ ko tegee ci. misaanu balance xam-xam rek dañ ko mën a dégg. alquran moo ñu digal nañuy jàng xasaayid yi xasaayid yi ci nekk ah ci naka moom laay leeral nii mhm. yàlla dañuy ne woon man de damaa julli ci yonent bi mhm. sant leen ngeen julli ci xasaayid yi taysirul asir julli ci yonent bi mhm. ah inna allaha malaikatahu yusalluuna ala nabiyyi ya ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima julli ci yonent bi farata ci kenn ku nekk ci ñun benn yoon ci sa dund boo ci gënee bareel nag ay naa filal mais nga gis moom mu moon mu ni bi may bind damaa set wecc katab boo kulli faaraqa dan boo shirka damaa set wecc daal di bind ni ñuy jullee ci yonent bi sallallahu kooku booy julli yonent bi sallallahu bëgg lu gën a set jël lim lim bindoon ci julli ci yonent du gën a wóor ka mi nga xam ne leer na am na loo taq yow mhm. bu nga ngay créer sa salaatu bopp man mën naa créer sama salaatu bopp ku dégg arab gi mën nga ko mhm. rabbi salleeg lu waxee rek delloo ko lu ko mhm. mais moom yi mu defal ci ci ci desitu yeneen bi solo solo bokk de bokk mooy li may ndamoo mooy sama karaama ba pare tamit maanaam bi mu koy def mu ni dafa set wecc loolu defe ci yàpp naa muy gën a jege mhm. beneen bi yàlla moo nañu ñaan leen ma may leen ñaan leen ma may leen xam ni ñaan sëñ Mamor mhm. jaamu yàlla la mhm. gis nga la ngay ñaan gisoo ko ñaan gi rek la fait que ngay ñaan yaa ngi jaamu yàlla te moo ne ñaan leen moom may na te xasida ay ñaan la googu jullu mel na sundiidi gis naa ay kilifa mm-hmm. ñu baal ma sax ci baat bi waaye mm-hmm. fekkee mën nañ ko waxee noonu mm-hmm. fekkee kuy jàmbat la wa qalilun min ibadiya shakur ñu néew ci sama jàmm yi ñooy sant xasaayid ay sant ay sant kese la gis nañ fii Euh, achiinu mujamatan mhm. xasida ga daanaka ak sant ak ak sant kese ak yeneen ak yeneen yu bare bare fànn gu mel noonu sax daañu ci ñëw mhm. euh, ci lenn loo xam ne dañuy faral di ko gis ci mbind sëriñ bi mhm. euh, mu doon loo xam ne sax teguñu ko sart ci kiy bind waaye da ngay gis sëriñ bi moom mu di ko toggoo mm-hmm. ba ci yoo xam ne sax faaw nga xam sëriñ bi ci boppam mm-hmm. euh, soo ko mën a firi mm-hmm. ndax am na loo xam ne njàngum xaraab rek taxul nga mën koo firi da ngay dem ci asiinu muhjamatan wal kaafu war raa u li raa i wal baa i waxul baa u war raa u nga dem ci xaalu li yarkan mu ne daxawtu salxay ni xabla raa i wa siin yu mel noon naka lañ ko mën a comprendre ok yooyu ku min bindu sëriñ bi rek da ngay dem ba dangay am habitude habitude comprendre ko mhm. du sëriñ bi kese bépp kat rek boo ko yàggee liiral ko yàgga liiral lu euh, imam Ghazali bin da ngay dem ba xam ni moom nii lay nii mooy mooy ay expression nii mooy usluubam mhm. sëriñ bi tamit dafa am tamit usluubu boppam mhm. ku ko yàgg ku yàgga liir ay mbindam rek da ngay xam ne tey moom genre expression lay utiliser boo ko yàggee rek euh, la pluie ca ca bu njëkk ba xëy na la lay firil waaye ci des yëpp yow yaa koy comprendre sa bopp xam na bu ne achinu mojamatan wal wal kaaf warra chiin mojama mooy chiin mooy chiin bu ñu siin su tooy bi ñuy wax ci daaray yi mm-hmm. wal kaaf nga am kaaf ra mu doon a shukru mm-hmm. ah li li li raa wal baa raa wal baa mooy arab xam nga raa am nga baa mooy arab yooyu sëriñ bi da doon da demee ci côté yëpp loo xam ni mm-hmm. parfois tamit il faut ñu fa ñu bàyyi xel ni daa daan def li ñuy wax shiar mooy mm-hmm. poésie shiar mm-hmm. dafa am ñoo xam ñoo ko bàyyi muy udaba yi littéraire yi ñoom tamit dafa am lu ñu ko doon gisa daan ci wane seenu mën léeg-léeg da leen di won tamit ni moom mën na moo tax nga gisoon mu won leen liñ daan liñ daan def ñoom ba pare lépp lu ñu daan def ci way ci wane sa wane sa maîtrise arab def na ko. macha allah ba pare def nag leneen lu kenn deful. loo xam ne xamuñu ko mu ngi mel luqat muqaddimatul am daax. Mm-hmm. suñu gis. avant moom xasida boo xam dañ koy tëggee comme euh, ay alxuraan ni mu koy yebee sax di ko tëgg xasida ci moom lañ ko miinee waaw waaye xam moom muqaddimaat da cay doonoon beneen mm-hmm. ndax ci muqaddimaat day jël waaw bi mm-hmm. tàmbale ci bayit ci waaw bii la bayit bi di jeexee lu meew na xafawtu anil ahdaay turan li wa ci man nafaahum bi xayri saramadan lasu at fahu afawtu ayn ayn mhm. afawtu ayn la tàmbalee ayn la mooy mooy wa innaka laa ah bi mu ñëwee ci ayn boobu mhm. noonu la def araf yëpp noonu la def lettre yëpp mhm. loolu miinuñu koon ci moom maa lool Allah te loolu kese gis naa ay gëstukat yoo xam def nañ ci ay ay bind yu yéemee yéeme génn tey secret ak ci wàllu ci wàllu littérature rek laa waxuma ci wàllu geneen wàll gi yëpp génne ci yu mel noonu yooyu boo ko jëlee rek ak yi ma doon wax mm-hmm. day wane ni li ma doon wax ni xas euh, sëriñ bi mm-hmm. euh, xasa alquran moo ñu digal ne ñu jëleen jàng xasaay yi ñoo tàmbalee ma jeexale mhm. ci beneen xasit li ci nekk mooy waxtaane may yu yàlla may ab jaamam mhm. moo tax ma naan wafirtu loolu sax euh, dama may ma yegg ma daaneel rek def ko deuxième tomb bi baana yow parce que dama bëgg ñu ñëw sax ci sëriñ bi euh, xasida yi li mu bind yaa ngi koy junj léegi waaye dama bëgg booy dugg foofu ñu duggaale ca fam ko doon bindee mhm. parce que loolu itam lu am importance la ndax dangay gis mu bind wax ju neex Euh, fa mu ko doon bindee doon fu metti loolu itam doon leneen loo xam ne euh, dafay bokk rek ci karaamay xasida yi euh, soxna ki de Deme maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ndokkeel di rafetlu sa liggéey sëñ Ibrahima maa ngi lay nuyu bu baax a baax di leen ndokkeel sëñ Saliou dégg nga fi nga xam ne fii la. Euh, sëriñ Moustapha daane léegi euh, mu jëm ci wàllu xaside yi nga xam ne ci pàcc yu fasantikoo ci sant euh, ci julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne farata la waaye ci dag tagg yonente bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne itam salaato sitta bi matihi sitta taatihi batta mahati yi waaye ku ne xasida yi itam ne liggéey ndax sañ Touba daf ci doon liggéeyal euh, yonente bi alayhi salaatu wasalaam ba tax na fu bëri euh, yaakaar naa la muy jëfandikoo mooy Abdullahi waaye bu noppee xaddimu rasul daf ciy teg euh, nga xam ne bu ne Abdullahi jaamu suñu borom daf ciy feeñ waaye xaddimu rasul yi da nga gis ne liggéey daf ciy feeñ moom mu tànn opté liggéeyal yonente bi alayhi salaatu wasalaam sëriñ Saliou ba mu bëggoon question bi gën a gàtt dama naan la yoonu murit ak liggéey waaye sëriñ tubaa ak liggéey mbindum Serigne Touba itam naka lañ ci mën a jàngatee liggéey ak liggéey fan la yóbbu yoonu murid ci tënk. bismillaahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ bi ñoo ngi lay siyaar ba Maam Mor xam naa <laughs> ñu ngi jégalu ñu ngi waxoon ne ñu wax tuuti ci kasbul alaal bi nga xam ne. Mhm. mooy thème bi nga xam ne moom nga waxoon. mooy liggéey muy sàkk lu lew. waaw sàkk lu lew xam naa mhm. loolu ñu wax ci tuuti rek. Mhm. ko defee. gën a bàyyi suñu mbokk mi ci xaside yi ak sëñ bàcc mi euh, xam naa li ñu ciy wax lu thème bu riis la thème bu am maana la thème boo xamante ni ku ci nekk rek bala ngaa wëndeel thème bi di ko jëme fenn wëndeel ko ci sa bopp ba xam foo ci toll ak lan nga ci def ak lan moo la ci dese ndax sàkku lu lew bokk na ci ba ci sa yére yi ngay sol ba ci bokk na ci ba ci li ngay lekk ci sa biir te yonante bi salaa salaam nee na amul wenn suux woo xamante nii lekk na lu lewut loo xamante ni sawar a gën te yey ca suux woowu nit ki mën nañ koo tagg ci ay julleem yu bari tagg ko ci koor yu bari tagg ko ci lu bari waaye boo demee ci gi alal lekk lu lew boo ko nattee ci àndaar ji nga ko natt àndaar ju yées la ciy doon mm-hmm. yonente bi salaa salaam dafa wax ne képp koo xamante nii téyel nga ma li nekk ci sa digg ngaam wi sa ñaari ngaam yi ak li nekk sa ñaari pooj mhm. ma warlu la ajjana foofu nag day nattuwaay yu rëy yoo xamante nii féeg nattoo ci nit rek loo ko tagge rek am na lu ci des mhm. nit dinañ ko tagg ci baax ci mën a julli mën a woor mën a def lépp mhm. waaye tey boo ko dénkoon xaalis dong rek wala ngeen séq ca danga xam ne kii du waaj a nga doon tagg te loolu boo ko xooloon ci jënd ak jaay lépp ak ku man di doon rek da ngay yëg ne yées lay doon moo tax yonante bi salaa salaam waxoon ne Seydina Aboubacar ne kullu taajirin faajirin ila Aboubacarin képp kuy jaay ak jënd am nga as naafeq ba mu des ila Aboubacar bu fekkee ne nit ki am na balance yu muy jëndee ak balance yu muy jaayee rek ca nga xame ne kooku ak maandu amatu fa dafa am ñu bari ñoo xamante ni foofu lañuy daanoo. Mm-hmm. ba ci boo demoon ba ci banque yi ñuy def nit ki dénkaane fa alalam mm-hmm. lan ko cay tegal bu ko jëlee riba la. Mm-hmm. te ñu ci bari ci commerçant yi da ngay dégg ñu naa la man li may liggéey banque bi lay liggéeyal ak nangam. te fekk ne ab jullit sañu ta xool lu ko neex. jullit sañu ta lekk ko neex. jullit sañu ta doxale lu ko neex. yonante bi daf noo tënk ci diineem ji lum nu indil loola lañ koy jël lum nu fi bàyyiloo ñu bàyyi ko euh, Seydina Aboubacar nee na inna diine naa mabniyun ala naql ala munasabatil aqli diine du caagee nekk lu rafet ci sa xel rek lu baax la déedéet dafa am koo xamante nii ku yoroon benn soxnaam la xëy suba teel amul dépasse mu waaxu ne borom kër gi ne soxna si maa ngi dem di wuti dépasse te ñëw ba mu demee bay génn ba ca buntu kër ga soxna si woo ko ne ko nijaay xamal ne mën na noo muñ xiif bi de waaye ñun mënunoo muñ sawara ak tàngaay wa mooy naka ko li ngay wuti na lew mën na noo muñ xiif bi nuy xiif fii hmm. waaye ëllëg nga indi lu lewut ñuy dugg sawara loolu mënunu ko muñ loolu mooy tolloo xu anfusukum wa axlikum hmm. nit ki warul rek du responsabilité boppam moom la yor hmm. waaye boo amee jabar am ay doom am nangam am nga responsabilité te yooyu sunu mag ñi dañ cee baaxa woon euh, sëriñ euh, Modou euh, sëriñ Modou Assa Jaxate sëriñ Modou Assa Jaxate radiyallahu anhu mooy nijaay ci sëñ Abdoulaat yàlla daa dogal am na fu mu doon tukki ba mu tukkee yóbbaale sangalam ba mu demee jigéen ji di ko laaxal ba mu laaxee ñulug bi ëpp mu dem jël jeneen sangal dollil ko ci ba mu ko ci dollilee sangal bi mu ko lekkee tàmbali di waccu piir bi di wiñaaru di wecc ñu dikk laaj ko ne ko sëñ bi lan la mu daal di ne ki doon togg laax bi laa bëgg ñu wool ma ko ñu wool mu ne ko xanaa lii da cee dolli dara mu ne ko waaw ñuulug bi dafa ëppoon ma dem jël seneen sangal deel mu ne ko man nag dama dul lekk lu dul lu ma ñaq lu ma sama ñaq bopp incha allah loolu mooy tolloog li wala fi wax na lu lewut mhm. du law te biir bu ci regg ràkk biir bu ci rek mag ñi dañ daan yëg loo xamante nii buñ leen masaana jox gis nga rek lu yàggul rek sëñ saaliwu da nga koy tàllal xaalis mu ne nii wacc mhm. ci loxo bi mhm. sëñ Tuubaa mii nga xam ne mooy sunu sëriñ ku nekk xam na ne bañoon na ko ba dafa tànnoon ñaari métier yi gën a riis yi nga xam ne jullit bi néew na mu lekk ci lu lu lewut ci moom mooy mbay ak sàmm bi maam na bi muy dem dane ko digal naa la nga yore daara ji yore njaboot gi waaye fépp foo mën a dem te man faa bay ak sàmm fa na nga fa def mhm. ndax gis naa ne mbay waxuma la lew gi mu lew rek waa wàkkilu gi ngay wàkkilu ci yàlla rek mhm. jullit bi dafa war a mbiram yépp mu wàkkilu ko ci yàlla mhm. sëñ satu mii mi ngi doon jàng bi sëriñ tubaa bi mu fiy jógee ajjuma ji nga xam ne takkusaan jot na ci waxtu wi ci la taalif xasida gi muy amettu man yaqsimu nii mën a dara min kulli saytaanin wa jinin wa basar ni ko sëñ bi doon waxee sëñ bi dafa mën a ñaan ba ni muy waxee ay waxam tëggee ko néew na nga mën a gise ku ko déggee foofu rek la sëñ Modou Lo sëñ Mouhamadou Lamine Gaye nee na sëñ Mouhamadou Lamine Diop nee na foofu laa xamee woon na sëñ Tuubaa dina dellusiwaat te boobu àggagul ndar boobu Mbàkke Bari la ko taalibe bi mu demee ndar mu soog a wax sëñ Ahmadou njaay maa béy ne ko damay dem waaye damay si dama bëgg alif xaside gi asiru mahal labraari ina asiru sannal hida una ka asiru nga teel ma bayit wi dinaa dikkaat fekk le loolu li muy tekki mooy nit ki lu lewut ñun dañ cee war a góor góorlu bu baax a baax rawatina murit nit ki alal ji muy yor muy jënd ak jaay waxoon naa ko ci tàmbali bi Seydina Aboubacar dafa amoon jaam boo xamante nii dafa nekkoon ab jaamam jamono yi da daan def rek moo koy jox lu mu lekk moo koy jox lu mu naan waaye naa Seydina Abubakar benn bi saa bu ko masaana indil nag Seydina naa da koy laaj foo ko jëlee noo def ba am ko mu ne ko dama ratt jur gi wala dama laa am lu ma yan woon indil ko benn bis Seydina Abubakar woor ba ngoon mu indil ko ko tàngaayu koor gi Seydina Abubakar laaju ko daal di koy lekk muy am soow Seydina Abubakar jaam bi ne ko waaw yow danaa daan def lu ma la indil dara rek danga may laaj foo ko jëlee noo def ba am ko te bii laajoo ma dara naa Seydina Aboubacar ne ko lii nga may indil foo ko jëlee mu ne ko man bi may laata dugg ci njullit ci ceddo gi dama daan gisaane bi ma daan gisaane nag loola dama am ñu ma ci gisaanoo lebal leen ko mooy seet rek ba nu tase léegi ci mbedd mi lan ma fay xaalis bi ci laa la jëndal soow mi waaye Seydina Aboubacar daa dugal loxoom ci gémmiñam di waccu di wacc soow mi ba soow mi jeex nu soog a mën a am jàmm allahu akbar mbokk yi feeg delluwaat nunu ci lu mel noonu ci ñun ba ci ñun ñii di wax ci wàllu diine man sax xañ na duma ci bokk ca kawe waaye ñi ciy bokk bu nu moytuwul rek danañ dugg ci kàmm ndax bu fekkee li ngay yor jàpp nga ne foo taseeg nit dalaa war a jox wala danga war a am ci loo xamante ni nit ñi la koy jox joxewuñ leen ko sa sago dan la koo jox rek ngir xañ na bëgg law tagg wala am coppeel joxuñu la ko dëgg-dëgg aqiqatan li wacci laay mm-hmm. am na koo xamante ni ci borom xam-xam nee na dafa dem ci marché bi di jënd bi muy jënd rek benn waay fekk ko fa ne ko mm-hmm. ah kii ngay jaay xam nga koom kii de mooy diw sàngam mooy kiy wax ci tele bi wala mooy wax ci rajo bi mm-hmm. wala mooy jàngkatu xasida bi ah na nga xam ni ngay jëflanteeg moom waaye waa ji dafa wiccax lim doon jënd ne ko ñun jëndewuñu suñu diine dañuy jënde suñu xaalis maanaam li la nit ki jox ngir dan la ko présenté taggal la ko wan la ne mooy diw sàngam nga jox ko ko ci ñàkk pexe waaye waa ji dafa wiccax ki bi ne ko ñun jëndewuñu suñu diine waaye sunu xaalis la ñuy dëndee ndax nit ñi liñ lay jox lu toll noonu la ñuy rocc ci sa diine dëgg la maanaam liñ lay defal mhm. bokk na ji tamit ñi nga xam ne soxna Faat Jam yi nga xam ne taawu sëñ Tuubaa sëriñ bi daa daan wax tune na ci Touba ji njaareem ju Touba ju mag njëkk ja ca la tarbiyewoo ndax soxna Fat ja bul fàtte ne moo mag ci doomi sëñ Touba yi waaye da daan wax ne man daanaa toog fii xiif lool ma xool kër sëriñ bi gis ñu fiy indi lu nekk lu nekk di fi am waaye bu añ jotee wala reer jot sëñ bi benn tànku baraay la may jox ak benn kubéeru ndox nee na mas na koo fekk mu tëdd di nelaw moom soxna Faati Ja soxna seen sëñ bi ne ko yow soxna Faati lu tax ngay tëdd di nelaw yow maa ngi bëgg ëllëg fu nu taaj Faatu Bintu Rasuul ñu taaj la fa nga tëdd di nelaw waaye ba ni mu fi jógee mës sa nelaw macha bokk na ci li nga euh, li ma koy daaneele sëñ Mamoor mm-hmm. imaam Malik ñun ñëpp ñoo ko xam yaakaar naa ren bokk na ci thème bi dëgg la imaam Malik mas na ni laajte benn gàtt ne dañ koo sàcc ñu koy yéene naa am na gàcc boo xam ne dañ koo sàcc sàcc dañ koo sàcc waaye imam Malik toog na nangami at yoo xam ne nanguut a lekk ndawal ndax bañ gàtt booba ñu rey ko mu jënd ca wala ñu may ko ca wala dara mu lekk ko xoola googu te sëñ bi loolu am solo la nit ñi bu nu àggut ci wàllu di sàmm sàmm koo xamante nii mhm. yonante bi salaa salaam nee na mas na maa ñëw ci kër gi fekk xiif bu metti dal ma mhm. ma gis tàndarma ju bari ci biir waaye bi ma xoolee mhm. xaw ma tàndarma ji àddiya la ak du sarax te yonante bi du lekk sarax dëgg la waaye mu ne duma ko lekk da koy daal di bàyyi waseynoog asan foor ko mu ne ka yàbbil yàbbil mhm. daal di leen ko yàbbiloo macha allah te ku nekk xam na ne mhm. ni ma ko waxe woon léegi mhm. nit ki bu fekkee ne du def lu lew sax néew na sax ba ci communication boo du def lu lew lekk lu lew wala ngay am lu lew néew na sa communication jàll ci nit ñi ndax li tax du jàll mooy nit ñi ñooy suñ borom mooy sakk xoli nit ñi xoolal mag ñu jëkk ña fi daan waxtaan fukki minute moo gën a doon ci seen discours bi gën a gudd waaye ni ko nit ñi di dégg sëñ Abdou Lahad déglu naa benn discours am ba ñetti minit la waaye ba léegi tey mënoo wax te tuddoo sëñ Abdou Lahad masha Allah benn waaye dañ koo laaj ne ko lu tax mag ña gënoon leenu baax ay wax mu ne ko mag ña dañ daan wax ngir bëgg a jariñ nit ñi mm-hmm. ñun nag dañuy wax ngir bëgg jariñoo nit ñi macha allah muy la am solo mu ne ko ñun lu tax mm-hmm. ñu gënal leen a baax wax mm-hmm. mu ne ñoom dañ daan wax ngir bëgg ngërëmal yàlla ñun ñu bëgg dërëmi gaa yi loolu nag bu ko defee li ngay wax man naa bari waaye du am njariñ dëgg la ok macha allah eh, jërëjëf eh, Serigne Saliou mu doon tomb bu am solo boo xam ne eh, yaakaar naa ni bu gënoon a yaatu itam gën a am solo rawatina nettali yu am solo yi nga xam ne moom nga ci junju Euh, mu di kon sàkk lu lew kon dafa doon loo xam ne farata la ci ab jullit euh, ndax bu dul dara itam alquranul karim euh, digal nañu ne wa ahallallaahu al-bay'a wa harrama riba nañu sàkk lu lew waaye nañu moytu li nga xam ne riba la muy alal joo xam ne ju lay doon ci sa biir wax it wax nga lu am solo lu jëm ci wàllu borom xam-xam yi la ngay wax nit ñi itam na doon looy jëfe ndax Serigne tubaam mi ngi nettale ci téere bu mag di silkul jawahir Euh, fii axbaari sarair di wax ne euh, bëri na borom xam-xam yoo xam ne ëllëg yomal am nit ñi dañ leen di romb sawara ñu ne waaw yéen lan moo leen dugal sawara yéen a ñu daan jàngal yéen a ñu xamaloon ci àddina àjjana jii ñu nekk yéen a ñu tegtal yoon wi ba ñu teg ci ba ñëw yéen lu leen indi sawara ñu ne ñun kat dañ leen daa jox xam-xam ngeen di ko jëfe te ñun daawuñ ko jëfee euh, kon mu mel ne lu am solo la jëfe xam-xam na ku ko def doo lekk lu lewul doo lekk loo loo xam ne li riba lay doon doo jëfandikoo itam ci kaw nit ñi waaye booy waxee di nga wax te yàlla tax ndax wax moom bu jugee ci xol ci xol rek lay tàbbi euh, tey mu doon lu am solo euh, bala may ñëwaat ci suñu mbokk jàngkatu xasaa yi di mooy Seydina Amsa ak euh, Sëriñ Bàcci sëñ mu da nga nekkoon fa am solo ci wàllu xaside yi te bu ñu fàtte ni doole mbindum sëriñ bi dafa doon lu am solo ndax sëñ Tuubaa dafa wax ne bala maa tàllal sama loxo di ñaan yàlla dafa may may ba noppi soog ne ma ñaan wa maddali zayet man li yaqulu haka xablu madiyat loolu la wax ne li ma wute gaa yu baax yi fi woon ñoom dañ daan ñaan suñu borom mu may leen man nag yàlla dafa may may ba noppi soog ne ma ñaan ko mu dëppoog rek li mu wax ne omarum tuhu mim malike xaada bi li an ji euh, bokk na ci lam ca ñaan waccaxal salaati waccaxal kitaabati min saw min sal yow mi faw fawxa salaatin xubilat wa saw mi nang ma may sama xasiida mu gën a kawee fawxa salaatin julli guñu nangu ak koor gu ñu nangu waaye contexte bi Serigne Touba doon bind xaside yi mu mel ne kon foofu sax laay profité dugg ci ñaareelu question bi mooy njariñ li ci xaside yi waaye dama bëgg nag nga dikkal ma tuuti ci contexte bi ko Serigne Touba doon bindee ndax euh, damay jàng ci benn histoire ci ci ci euh, ci njaareem euh, ñu ne sëriñ bi dafa mas a toog mag ñi jàng xasida borom daaru moti toog ñu jàng ba mu yàgg borom daaru moti di jooy jooy yu metti ku tedd ki jël loxoom bu tedd bi teg ko ne ko Ceerno mu ne ko Mbàkke mu ne ko neexiitu baatu ñuy jàng moo tax ngay daanu wala dégg na ko xaraa bu ki bind moo tax ngay daanu ne ko naa la ci wax loo xamul ki bind mbind mii fa mu ko doon bindee kuñ fa yóbboon ku dul sawaaj yi donte am na lu muy bind lu ko fa jëlee lay doon waaye du doon lii kon dikkal ma tuuti ci contexte bi sëñ Touba doon bindee waaye lam fa bind sëñ Moustapha jërëjëf sëñ Maam sëñ Maam Mor mm-hmm. sa question bi am na solo lool mm-hmm. Mm-hmm. jërëjëf. Mhm. bisimilah. am na solo. Mhm. waaye dama buggoon nga may ma rek. Mhm. ma am lu ma commenté tuuti ci waxi sëñ Saliou. Ah, dafa am solo lool. sañ nga ko bisimilah dafa am solo lool. ci diggante loolu ak li ma ko ci tegal ci ñun ni ñu war a gën a taxawee. ak ñun ñi nga xam ni dañuy mbubboo Serigne Touba. gis nga Serigne bi. dafa prudent woon lool sax ci digg ci am-am yi ñuy am. ñun fi ñu toll nii boo génnoon naa koy faral di leeral boo génnoon ñu ne ana sëñ Mamor ñu ne dafa liggéey sëñ bi da daan bañ loolu daa wax dafa liggéey daan dafa sàkk ji lew liggéey ci feneen la ko daan ñetti baat yi dañ daan niroo mais fu ci nekk daf ko doon utal contexte mooy li nga doon wax nit ki boo ko du dara lu ñu lu ñu lu ñu kenn wax mais da ngay yàgg liir am bindam dem ba comprendre ah lii kon bu koy wax lii koy bu koy wax ngay bu wax maanaam liñ naan xidma da ko utiliser ci li nga xam ne yow koy mën a defal nit te mu te du doon farata ci yow comme par exemple nga doon dellu ndakaaru ma jox la dara ne la yóbbaale boo demee doxal ma ko diw mhm. nga defal ma ko tan sàkkuwuma ci dara mhm. loolu da nga ma xitma loolu xitma la ci loolu waxee naan waqati xawaaji alladina daamu fii xidmati wa hablahum maaram loolu fooy mooy sensu xitma foofu mhm. baatu amal daf ko daan utiliser jublu ci li ngay def sa diggante ak sa borom wala taalaman bi anna ilman wa amal mhm. huma wasila saadat ajal mooy jëf mooy jëf mu ne amal rek mooy sunu julli yeeg koor yeeg sunu wax dëgg yeeg sunu bàyyi jëw yeeg loolu moom mooy amal mhm. waaye fekkee day aju tey mhm. ci maanaam dem liggéeyi kër kër yi ut loo am pour lekk lool dafa ko utal baatu boppam daawul wax liggéey dafa ko daan wax da daan wax sàkku lew ci daan waxee naan wa kasbul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi xayri wahami sàkku lu leew def farata la wala mu doon iltimaasul xalaal iltamisul xalaala kulla saa bi ak lii yabdul hudaa wa taa fu ngeen toll saa su ne dee leen sàkku lu iltimaas ndax ci lekk ko ngeen di mën a jube kenn mënta def lu set te lekkulu lew mm-hmm. ku lekkul aram mooy yàlla yàlla na ci am sa ku lekkul aram rek mooy mm-hmm. yàlla kon ñetti baat yooyu mm-hmm. laa bëggoon pour gën la dëgëral sëriñ bi ci li ko am na solo lool ñaan nañu yàlla yàlla nañu ci yàlla saxal sa kàddu gi gàtt na waaye wax dëgg yàlla man de jëriñu ñaat yu baax a baax jazakallah pour ñëw ci sa question bi muy mbindi sëriñ bi toujours ak fa mu ko daan binde sëriñ bi binde ni situation bu ne waaye moom dafa doonoon dafa fexoon ba dëgëral personnalité am ba nga xam ni li ko wër yëpp budul li mu jëm yoram nekku ci moo tax même ci jàngale loolu daawul dox sax di gestu wala toog ko mu wuñ toogee fu ne rek nga sànni fa bët mhm. sa yoon nekku ci la ko daan moom xalimam gi moo ko yitteel toujours ci lay nekk daawam jii moo ko yitteel toujours ci lay nekk li li koy metti ci yaramam ak wéetaay beeg yooyu yëpp du ci dara moo tax bind na fu ne xam nga ku tiim daajoo xam ne da nga naan ah, midaadi ka dima i shuhada mhm. fi xazawaati bi man man bi faw di shahida sama sama daa ji moo reetu gaa yu baax ñoo yemoon gaa yi doon daanu ca Badar ak ci Uhud ak yu mel sama daa ji nga yemaleeg loolu loolu lu kenn mënta dégg la mhm. waaye moom mi tiim daa ji xam daam ji di wax loolu kooku du tiim loolu tey di xelam di nekk ci leneen mm-hmm. moo tax nga gis mu bindee ci contexte bu ne tàmbalee ko fii laata muy de euh, loolu ginnaaw sax bi mu ñëwee ci tukki bi la waaye tutee après ñu dellu ci tukki bi dama sama xel day dem ci xasida ku mel ni rabbi bi may sorol azhan qad faja mm-hmm. xam ne bi mu koy bind boobu yow ñi ngi yónnee sa kër mm-hmm. moom la sëñ Moussa Kanaano di wax naan tubaab bi yónnee ci kër yónnee ko visite lu kër ga di seet balak doomu fekk fa téer ak war ga mooy ci daarul man di vider kër gi ngir rek ay ngànnaay yuñ yuñ yuñ ne moo fa nekk. pour fekk ko ko jamono jooju yow yaa ngi taalif. Mm-hmm. xam dafa mel ni yow contexte bi ñoru la sax. Mm-hmm. waaye ñor na ko ndax ba ba ñuy ñëw nee na taalibe yi buñ ñëwee bu kenn dox seen diggante ndax dafa am ñu ko doon sàkk pour jàmmaarloog ñoom mënu mhm. ñëwee te boobu am na nombre bi bu wuutee nag laata muy dem mhm. bu ñëwee bu kenn dox seen diggante bu bàyyi leen leen kër gi ñu visité nu mu leen neexe mhm. jamono jooju ma ngay bind tey ñaanal sax bay ñaanalaale ñu ko doon visité yaa maalikal mulki yaa man jàlla nga xam ne bëtam sax jël na lii jël na lii mi ngi ci jullit yëpp mbindeef yëpp nekk tamit nekk tamit ci tukki yoo foo xam ni da nekk dëkk ci taatu géej ci taatu géej te li koy wane rek mooy ku fa dem ñibbisi woo dëgg la waaye dëkk ci taatu géej sedd bi waree sedd ni muy sedde amoo dara benn protection amoo ko bu waree tàng ni muy tànge léeg-léeg ngelaw ñëw jaxas sa lépp yow teewul yow li nga li nga nekk rek nga nekk ci muy ca tefesu lambar waaw ca tefesu tefesu maayomba ga <laughs> loolu waaw loolu du doon bind bu rëy boo xam ne kenn ku ñun kenn ku nekk si ñun war na ko bàyyi xel mm-hmm. xam nga alquran day na nettali histoire ba pare gis nga boo gisee alquran boo ko xaajoon ñetti xaaj ñaari xaaj ba histoire la ñaari xaaj alxuraan yëpp dañ ne naan alxuraan ces deux tiers sont faits d'histoire ñaari xaaj ba histoire li ci yey ay atte lu néew la ci histoire yu bëri yooyu yàlla jublu ci nettali rek pour nettali mais day nettali ba mu pare ne faatabiru yaa ulil absar li may wax nii nag bàyyi leen ci xel mooy histoire Serigne Touba macha allah mooy histoire Serigne la boo xam ne yàlla nettali ci alxuraan histoire histoire waa Kahf nettali alxuraan histoire Yuusuf histoire Moussa histoire nangam yàlla na yàlla doole leen doole leen aleykum salaatu wa salaam. waaye histoire yooyu riche na lool ñu mën ci jàngi lu bëri waaye histoire Serigne Touba benn histoire demul mu des. bokk na ci rek ci wéetal wéetal sa borom. yow ni ngay wéetale sa borom. chartoo ci am métit. chartoo ci am bànneex. chartoo ci wéet chartoo ci wéttaliku. xusuur xalaat. wala ahlu an nii tafarraqat xoolal ñaar yooyu ni méttee wéetaay mhm. ñu bëri dañ koo dañ dañ koo ragal mhm. gisoo Souleymane ak Balqiis mhm. ak ak euh, picc ma picc ma ba mu jekkee-jekkee dem histoire bu ñëpp xam ne ci alxuraan suratu nam la ba mu jekki-jekki dem waaye ano hudhud ak nanga nang bu ñëwee dinaa ko dem nangam dinaa ko mbugal adaban shadidan mbugal mu metti aw la asbahannahu aw la yaatiyani bi sultaani mubin waaw mbugalu metti moom laa bëggoon taxaw dinaa ko mbugal mbugalu metti ñun waa picc si picc si nees koy mbugal moo sa suri ñooy wax de mhm. nees koy mbugale mbugal mu metti mhm. picc donc loo ko def mu dee di te bu deewee du doon ci mbugal mhm. ray lay doon noo koy mbugal mbugal metti moo fa suri daan ni mbugal picc mbugul metti mooy xabsuhu maa gayri jinsi boole ñu ñum xamut boole kook ñu dul xeetam ñu jël la ay at boole la ak ñoo xam ne duñ sa xeet ba pare yéene la lox xooloon mbugul metti moom teewulaa def tey teewulaa continuer nekk ca la nga nekkoon lan moo gën a metti dama koy wax ñi nga xam ne tey léeg-léeg dañuy indil seen doom yi ci daara jeeg yu mel noonu man leen xam li ngeen di dund ñun xam noonu nga ndax léeg-léeg ñu nekk ci voyage bu yàgg bàyyi suñu njaboot suñu ginnaaw nga xam tey ni lay manqué yow nitu kese gi ni lay manqué ni ngi leen di namme yow nga bàyyi xel bàyyi sa njaboot ginnaaw ngir rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an ni tafarraqa sama njaboot gi taqali koo nan ak man tax loolu tamit mooy tax léeg-léeg mu feeñal loolu di ko woo di ko ñaan mm-hmm. yasir ruju'i li tuubaaya maa ngi ñaan yàlla yàlla nag ma delloo Touba. Mhm. te Touba googu ba léegi ñëwu fi. Mhm. lu dul bi mu wujjee boroomam. wallaay ndeysaan lu gën a metti loolu. Mhm. bi muy jógee ci yéen jolof. jëm di jëm di jëm njaareem. xam nga dafa bokkoon ci jaayante bi. Serigne Touba kenn moom. li dañ koy wax rek ngir ñu jëriñu ci. histoire euh, jaamu yàlla la bu fi nekkoon. def loo xam ni. lu rëy la digganteem ak boromam daanaka mën naa lu kenn defut ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamuñu ko ko def teg fa boromam borom am fu mu jaar ak moom dafa baax ñëpp di ko xam sëriñ bi ngir rek ñun ñu mën cee jëriñoo mhm. ndax fekkee ñun point boobu rek la moo ñu mën a jëriñ mhm. roy ko mhm. bu dul roy ko rek dara duñ ci jëriñ ndax euh, yaa alquran dañuy woon tilka ummatun xol a xalat laha ma kasabat lakum ma kasabtum mhm. ñu am na ñooñu ngeen di wax naan dem nan génération boo xam ne wéy na mhm. lañ def ñoom la mhm. li ngeen li ngeen def yéen la dama doon daaneel ci point boobu rek ma ni nga nekk ci contexte bu mel noonu def li nga def day jar di waxtaane ko parce que Serigne Touba jàng histoire am day yokku ngëm xam nga loo ciy jo yoo ciy yoo ciy xamee da xam ne yàlla ko am kattan la Euh, mu doon lu am solo dañ may junj ne ma waxtu bi li ci des bëreetul euh, dama bëggoon ga tënkal ma dana dana dana jafe nag ñetti question yoo xam ne danga moo koy récibir ci ñetti minutes euh, mooy ñu ngi ko doon junj njariñul xasida yi ci ab murit waaye ci ab jullit pour mu gën a yaatu ñun li ñu soxla mooy bu ñuy dund nañ wér nañ am koom-koom bu ñu faatoo tabbi aljanna nan nañ ko mën a tibbee ci xasida yi jariñoo ko tënkal ma ko ci ñetti minutes rek ñu mën a waaw njariñal xasida yi bokk nañu pour nga dalal sa xel xasida yoo xam ne bu ñu ko jàngee yonent bi sallallahu alayhi wasallam day bëgg di reetaan ida katabtu farihal muzammilu xasida yoo xam ni yàlla yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu reetaanee xasida yi la adhaka rabbi rasulallah bi xatil muxdi aduwallah xasida eh, njëriñ ji mën nañ ko tënkee bañ nga ni ku dul jullit ku dul jullit bëgg ci xasida Sëriñ Tuubaa yi loolu si ñu texe la mm-hmm. nga ni muñ tàbbee dugg àjjana loolu si ñu ne yow mi digga dugg àjjana ndax ndax ku texe nga mm-hmm. haajal qasaayidi qalba kulli man lahu saada mm-hmm. haajal qasaayidi qalba kulli man kullu ci usuuli yu ni min alfaadul umum bawut dara xalu képp koo xam ni lahu saada am nga ak yow nar ngaa texe ëllëg boo déggee xasida yi da nga ciy bëgg kon lool bokk na njëriñu xasida yi bokk na njëriñu xasida yi defaru lan bëgg ko defaru loo bëgg am ko xam nga sëñ bi mi ngi junj léegi maanaam lekk lu lewaat yi day tax sax doo jaamu ya sa ñaan du nangu ni ko damay tënk ni ko xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam woon ci waa ju tukki lépp lu mu lekk dafa aram yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne fa naayu sa jaabula mënuñoo nangu ñaanam waaye defaru googu xas yi dañ koy def ci Serigne Touba lañ gisee ci Serigne ni dafee jóge ndax nit gaay bi baaxee yaa laata Serigne Touba dañ doon yar di defare waaye Serigne Touba dafee jóge ñu jàpp yar gi jeex defare gi jeex na mu ne bàyyi naa fi loo xam ne day defare ci Serigne Touba lañ ko gisee koo xam danaan faaqat qasaidi suyuqa tarbiya wa kulla xeyno suruqa tarxiya man wasilu aqlaami ila allahi aabidan wa bi kitaabati rabbi rabbi kulla mutaalian maa ngi lay ñaan nga defaral ma xolu nga yaral ma képp ko xam day yër sama xasida loolu baagul kenn te ku defaru defaru googu rek texe ko ku defaru defaru googu boo nee yàlla mu ne la am ndax kuy ñaan yàlla mu të wala mu kii rek am na tey ay ay feebari biir yooyu nekk si yow ñaan ak rëy ak bëgg nangam bëgg nangam yooyu boo ko raxasee ba mu set loo ñaan yàlla def ko nga am koom bi ngay ëpp te te ñoo bàyyi tam xasida yoo xam ni pour koom moomal ay ay lu mel ni mawaahibu naafi bàyyi ñoo xam ne pour aaro lu mel ni sundi di yooyu yëpp dañ koy dañ bàyyi yoo xam ne nag pour nag moom ay ay ngànnaay la mhm. yooyu nag dañuy tere ku ko xàmmeewul du ko jëfandikoo ba ne woon naabat fasaxe ni ani silaahi naa naabat kitaabati ani silaahi wal jawalaani li sawi li dawi solaahi nee na sama xasida dañoo wuutu ay ngànnaay mhm. naabat kitaabati anil madaafi mhm. sama xasida dañoo wuutu ay ngànnaay ci ñoo xam ne tey say noonu lan ku ko xamul mën nga koy am noo ko jëfandikoo loolu mag ñi ñoo koy xamal ñenn ñi xam naa tuuti nañ ci leeral ko waaye day dellu siwaat ci yow maa ngi sant bu baax di jégalu salaamaaleykum wa rahmatullah Eh, jërëjëf eh, sëñ Moustapha Kay ñu lay gërëm bu baax di la di la sant eh, di la ndokkeel Serigne Saliou bëggoon nañ sax nga dikk ci tomb yi gën a yaatu waaye li des ci waxtu bi dafa dafa dafa bëreetul dañoo bëggoon rek nga nga tënkal ñu fii sëñ Moustapha daaneel xam naa jombul da sànni ay tomb ci xasida yi ndax yewet ko ci géeju nga waaye Serigne Saliou ni nii pour ma bàyyiloo leen xel dafa gën a spécialisé ci wàllu xikma yi ndax dafay wax wax yoo xam ne yu am solo la euh, moo tax mbokk yi dañ koy gis mu mën a toog ak euh, Serigne euh, Serigne Moustapha Fall Mbawor ñuy wax ay waxtaan yu am solo yoo xam ne yu yu feese ak xikma lay doon li ko li ko li ko li ko suñu borom dimbalee mooy dafa gisu ci wàllu xikma waaye ko dégg lu bari la ci mbindum sëriñ bi waaye ku yàggale itam ci keppaaru mag ñi Euh, loolu itam dimbali na ko ci lu bëree bëri euh, gisukat yitam itam la euh, bu mag ci wàllu xam-xam loolu moo tax wax dëgg yàlla moom moo ñu dalal ci liggéey bi loolu itam dañuy profité présenté ko file ci antenne bu télévision Futurs Médias bu ko defee dañ lay jox rek xam naa dénkaani bu mujj moo ànd ak tàggoo bi ndax xam naa waaris yi sax dañoo dawal compréhension waaye biñ ma junjee ne ma fukki minute moo def ci waxtaan bi booba yàgg na ñu bàyyi la rek ci kàddu yu mujj yi ñu yëkkatee ko jotaay bi incha allah. barakallah jërëjëf sëñ Mamor uh-huh. jërëjëf sëñ Moustapha ñu ngi santaat suñu mbokk yi nu bokkal jataay bi sëñ bàcc mi uh-huh. ak kii uh-huh. waaw thème bi de moom daanaka ku ciy wax sa bopp rek ngay wax li ma waxoon du caagee nag diw sàngam ngay jàkkaar di waxal waaye yow sa bopp nga war a waxal dafa am benn waay boo xamante nii ku mënoon a xutba la da daan def xutba ajjuma xutba yu am solo benn jaam dikk ci moom ne ko dama bëggoon nga xutba ci goreel jaam bi mu ko ko waxee waaji na cell mu dikkaat ci imaam bi cay toog da ne ko dama bëggoon nga xutba ci goreel jaam ndax yiw wi ci am ndax mën naa am sax man ñu goreel ma ba ca àjjuma ja ca topp mu def ci benn xutba wax nga ne la xutba goreel jaam ni mu amee solo ni mu kiyee ku ne xam na ne yonante bi loolu da bëggoon moo taxoon boo mosaana def dara sax dalay wax na la goreel jaam bala laa ko waral ak defal yépp dalay wax ndax bëggoon na jaam jeex bi waa ji nee na bi mu defee xutba ci ajjuma jooju kere danoo goreel jaam yu baree baree bari ba moom ci boppu ñu goreel ko nee na bi ma goree bi ñu ko goreele ma dikk ci moom ma ne ko waa yow lii ba ma la ko waxee lu la tee nga def ko boobu ba léegi mu ne ko man nag day def ñaare bala maa xutba ci mbir dama tàmbali di jëfe loola maak sama waa kër ba mu leer na ñu ngi koy appliqué. Mhm. ma soog a dem ca miin bar ba di ko xutba. macha allah bi nga may wax ne ma goreelal jaam booba dama amagut lu ma jënde jaam dama doon dajale lu ma jënde ab jaam. Mhm. Mamor fekk àggunu foofu daanaka ak àggunu jigéen bu fekkee yow mën ngaa taxaw wax na xeesal ni mu araame mees ni mu araame. Mhm. te sa soxna di ko def ca kër ga sa doom di ko def. wax dëgg yàlla nag. yaa ngi wala nga taxaw responsabilité tere leen ko wala docteur bi taxaw ne la cigarette dafa bon dafay joxe cancer day def nangam mhm. bu génnee ci biti di tox cigarette loolu wax dëgg yàlla doo ko mën a gëm dëgg la lii tax nag ñu am lu alaal mhm. lu lew mhm. mooy ni ko sëñ bi waxee liggéey yi du liggéey bu la neex nga liggéey Sénégal nag bu demee ba métier yi bari ba boo laajee jiw sàngam ne ko looy liggéey mu ne damay business wala homme d'affaires la wala àgg sax ba ci la imaam Maalik waxoon mas na maa dégg fii ci télévision bi kuy wax ne maanaam li mu gis ci xeeti ci maanaam mat na quatre-vingt maanaam juróom-ñetti xeeti modèle yi fecc yu nuy fecc mm-hmm. yoo xam ne Sénégal ñoo ko kereel seen bopp waaye bi ñu laajee imaam Maalik ne ko fecc dafa araam wala araamut mm-hmm. imaam Maalik dafa wax na rek loolu ñu yées ci suñu dëkk ñoo koy def ña fa gën a yées rek Euh, bu ko defee loolu liñ ci waxee tàmbali woon naa ci wàllu jënd ak jaay loolu it day point bu bu xaw a kii ndax nit ki bu fekkee toujours ki muy jënd ñaari jullit yi mhm. man su may dikk sama yéene mooy nax commerçant bi mhm. fexe ba dal ci kawam mhm. commerçant bi li yéene mooy mu dal ci sama kaw fexe ba jaay ma loo xam ne dana ci dana dana ma nax loolu nag du ñaari jullit lool du seen jëflante macha allah jëflante ay jullit jëflante bu maanu la yonante bi salaa salaam wax mu doon tomb bu xam ne waaw ma <laughs> benn kii rek ma daane ko rek te tàggoo ci incha <laughs> dafa am ñaar ñu doon jaayante ay terrain bi ñuy jaayante terrain mu jaay ko terrain bi ba mu noppi ba mu ñëw di defar ab sàncam tàmbali di liggéey bi muy liggéey mu gis ci biir benn ndaa boo xamante ni or la sëf ba la def ba fees dell mu dem ca ka ko jaayan pàkk ba ne ko sëñ bi man de or bi fa ma jëndee ci suuf sa fa ko jële mu ne ko man bi ma lay jaay dama laa jaayaloon terrain ba ak lépp kii ne ko man itamit bi may jënd suuf si laa doon jënd pàkk bi laa doon jënd waaye jënduma li mhm. ñu nekk di discuter ci loolu ba yonante bi salaa salaam ne leen mhm. yéen ñaar ndax am ngeen ay doom kii ne ko am naa doom ju kii ne ko am naa doom ju jigéen yonante bi ne ko mayee leen ñaar ñoo ñu te ngeen jël alal ja ngeen def ko xolam maandu te googu euh, ñi ngi lu bu baax a baax nag di jéggalu borom xam-xam yi nii doon déglu ak borom kii waaye di feddali suñu kóllëre ak suñu mbokk yi ñoom bàcc mi sëñ Amsa mi ak sëñ bàcc mi ñoom yàgg nañ ci xasida yi wax da yàlla euh, ak sëñ Moustapha mi ñu ngi koy sant baax yow it ñu ngi lay delloo cant ndax ñaare day <laughs> waaye du ma bëgg di wax ji ni ndax dama du xam li may wax dëgg la ci man wala dëggul waaye lu mën a am solo daal li ma naroon a di la ko wax ci yow ma ñaanal la ko suñu borom sàmm la te aar la rek jërëjëf jërëjëf euh, sëriñ Saliou Niang xam naa sëñ am sa euh, danga may yëkkati rek lu toll ci ñetti bayit ba ñeent xool xasida gu gàtt rek goo xam ne dinañ ko mën a tàggoo bu ko defee sëñ bàcc man ñoo tëjal ji yëkkati jotaay bi incha allah من سن خير الله يغني أو يضر فساك في دارين سوء قد ودر من سن خير الله يغني أو يضر فساك في دارين سوء قد ودر الضر والنفع من الرحمن ليس من البيدان وسودان الضر والنفع من الجبار ليس من الفجار والأبرار الضر والنفع من الوهاب ليس من الأهداء والأحباب الدر والنف من الوهاب ليس من الأهداء والأحباب وهب لنا سرية تديم الهم صالح يا قديم وهب لنا نور على نورين وليهب سعادة الدارين jëf amiin yaa rabbal aalamiin sëñ Bàcci بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سان إلهي بالمناجات وابدا الاخنا يدي عنادي سان الهي بالمناجات وابدا الاخنا يدي عنادي دل علي العلماء والاولياء man laa yosaalu xuwati wa awliyaa dalla alayya alxulamaa wal awliyaa man laa yosaalu xuwati wa awliyaa xasiidati faaxat xasaa'idal kiraam ولي تقود أبدا خير مرام هديتي مخجلة كل مليك كان مناسعا وأقسو المليك ما توجع النصر الله لي بلا إله إلا الله ما توجعا نصار الله لي بلا إله إلا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله خمنا ريسي ñu may ma ko ci 30 secondes rek ndax joto woon nuyoo ñu bàyyi la nga mën a yëkkate ay kàddu ci 30 secondes bu ko defee ñu may ko itam sëñ am sa ñu mën a yëkkati bi. ndax bañ bu ma ko deful <laughs> yaraa nga fekk ba ji. d'accord jërëjëf euh, ñu ngi lay sant bu baax. jërëjëf euh, di la gërëm. Mhm. te di la ñaanal yàlla ni ko sëñ saali waxee rek. yow ku mat a ñaanal nga. ndax liggéey bi am na solo. Mhm. waxtu nekk ñu ngi lay topp. Mhm. Euh, ngay nit ku baax. cër bi la sëñ Touba cërale. daanaka gisoo ko sax. ngir wàcce sa bopp rek ak sa daraja. tey loolu rek moo am solo nit ñi bala nga leen a jariñ faaw da ngay wàcc sa bopp ba ñoom doog leen a mën a jariñ te loolu lépp yaa ngi ko ngi lay ñaanal yàlla bu baax suñu borom may la fanu gudd te nga ànd ko wér ba li nga yéene lépp ci liggéey bi suñu borom kàttan la ba nga àggale ko ci doole xasaay bi di siyaare bu baax sëñ Moustapha ñu ngi lay bu baax waaw waxtaan wi am na solo lool waaw ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay sant di la gërëm di siyaare sëñ Saliou ni mu ko waxee suñu wëllëre wu yàgg la waaw muy nit ku baax oo xam ni nii mu mel rek ni la mel du nit koy soppiku waaw nii mel rek la mel xam nañ ko bu baax a baax ñu ngi koy ñaan suñu borom euh, dolli xam-xam bi ak kàttan geeg wér gi ba li nga yéene lépp nga defe ko ni nga ko bëgg ci doole xasaay yi sunu xel seet na ci yow baax a baax bi siyaare sëñ Amsatu mi sunu xarit la sunu wëllër la ñoo ko xasiida yi muy muy rafetal bu baax a baax ñu ngi koy sant bu baax di siyaare mboolem taalibe sëñ Tuubaa yi seetaan télé bi yëpp bàyyiwuñ kenn di siyaare nag sunu buntu di sëriñ si Aliou Mbàkke di ko ñaanal yàlla sunu borom may ko fanu gudd te ma ànd ko wér ba ni mu yéenee liggéey sëñ Tuubaa lépp mu defe ko ni mu ko bëggee ci doole xasaay mi ngi siyaar ñëpp di jégalu ñëpp asalaamaaleykum sax xam naa ci 30 secondes rek ak ñàkkul kàddu yoo bëggoon a ñu tege ko incha allah waaw salaamaaleykum sëriñ Mamor ñoo ngi lay nuyu baax di la siyaare di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi Cheikh mun taxa ñaanal ko yàlla mu yàgg fi loolu te wér yéeneem ci lislaam ak liggéeyal sëñ Tuubaa mu def ko nam ko soobe di ñaanal sunu wasila sayidna am setu ibnu si ibrahim borom daaru yàlla dolli yërmaandem ak njéggalam ñaanal xalifaam bi nekk bi fi nekk yàlla yàggal ko fi te wéral ko di la siyaare yow it di ni ko sëñ bàcc waxee rek jëf ji rafet na lool ak liggéey bi nga nekk ci yoon woo xam ne si mën naa ne jihaad la ak liggéeyal sëriñ bi di siyaare ñi nu bokkal plateau bi sëriñ Saliou sëriñ Moustapha sëriñ Bàcc Diop di siyaare bu baax tamit euh, sëriñ Ibrahima Cissé di sunu xarit di sunu wëllëre di siyaare bu baax sëriñ Abib Mbàkke di siyaare mboole mbokki julli yi nuy seetaan ak yi nuy déglu di ñaan bis bi nga xam ne sëñ Touba moo ci digle nañ ko santle yàlla mboolem luñ ci def ci ay anwaar ak lasraar ak benn ak xibaadaat yëpp yàlla na ko nangul ci daraje yi yàlla mi tax ñu ko def ak yonante bi ak daraje boppam ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di leen jaajëfal bu baax yéen waa kii bi ku toog ci kër yi nag di seetaan dana mel na ni li yomb na waaye lu jafe la ku ñëw fii ñi ci ginnaaw ñëpp ñoo ngi leen di sant di leen jaajëfal. jërëjëf eh, am sax ñu ngi lay gërëm bu baax a baax di la sant Serigne Saliou Dieng yow itam ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la ndokkeel eh, Serigne Moustapha yow itam jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax eh, di ndokkeel bu baax Serigne Bàcci Diop moom itam di ko jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal itam. Euh, mboole mbokk téléspectateurs yi nga xam ne yéen a ngi ñu doon topp ci télévision Futurs média nii rek la ko fa yéene di doxalee euh, file ak euh, màggal ko Touba di jeex tàkk ñu fas yéene leen a gunge ci plateau yi am solo yi nga xam ne moom lañu ñu tàmbali woon fële ca Ndakaaru yeggalee si ko file ci dëkk bu sell bi la di Touba Mbacké ngeen bàyyi xel bu baax nag Eh, dénkaan yu am solo yi nga xam ne chaque émission moom la ñuy tàmbalee wala ñu di leen ko tëjale eh, ñu fàttali leen bu baax itam xasida googu nga xam ne eh, moom mooy Matlabul Fawzayni nga xam ne Serigne Touba mi ngi ko bindee file ci Touba gannaaw bi mu ko sancee ni nga xam ne noonu la bëgg Touba mel ko ak mboolem li mu bëggoon dëkk bu sell bi la di Touba Mbacke am ko sëriñ bi bind na ko ci xasida ga bokk na ci rek adduwa ka anta ci xalahu daara tuxa wal hilmi wal xamali wa daara defal ma sama dëkk bii di Touba Mbacke muy kërug ragal yàlla Eh, di këru xam-xam di këru diine eh, di këru wéet waaye di këru yokku eh, jëm ci dara yi gën a kawe wa jannatan li salikil muridi wa junnatan an hatikil maridi muy àjjana ci bépp taalibi bu joxe boppam ngir yàlla soo bu jëm ci yoonu yàlla waaye nay pek boo xam ne dafay wëlbati képp koo xam ne dafa fétteerlu di jéem a xotti war may lislaam ak war may dëkk bi wa man fahan li kulli haadin muslimi wa mad fahan han kulli haadin Euh, mu jërim yi muy foo xam ne euh, dañ fay jariñoo ñeel bépp jullit euh, di fa ñuy dàq bépp saay-saay ak bépp saytaane boo xam ne bu dëng la loolu doon loo xam ne rek ab yóbbal la bu ñu mën a jàppandi ëllëg ak jàmm daañu mën a dellusiwaat ci yeneen jataay ci yeneen tomb yu fasantikoo ñu xam ne boroom xam-xam yaa ngi fii thèmes yi ñu war a waxtaanee itam des na ba ci kanam télévision Futurs Médias itam mi ngi ba ca kanam màggal gi itam ñu ngi ko dëgmal lu mooy fan di 72 heures dugg ci 18 safar ni ma ko waxee léegi. bis ba nga xam ne ci la xaadim rasul dépanné woon ci Bakke Bari waxoon ne xarajtu yawma sabti eh, saamini hasar li xidmatil muxtaari eh, fii sahri safar eh, kon nag bis baa ngoog jullit njàngoog soppey ku tedd ka di xaadim rasul a ngoog màggal Tuubaa gaa ngoog télévision Futurs Médias ngoog télévision Futurs Médias ngoog ñi ngi ma Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké mi fi nekkal Serigne Touba suñu borom dolli ko fee yàggal bu baax te dolli ko wéral ba mboolem lu mu yéene naal ko ci dëkk bi naal ko ci yoon wi naal ko ci lislaam suñu borom kàttanal ko mu liggéey ba def ci na kowe njortam bu ma nee dix palaato yi dafay continuer di jaajëfal bu baax a baax suñu kilifa mu di Xaasi Njaga Nduur ñu koy ndokkeel bu baax a baax di rafetlu eh, jàpp ga am solo gi nga xam ne am na ko ci liggéey bi sëriñ Pathé ja Ibrahima Cissé Papa Samba Thiam Laay Maxtaar Apulaay yow itam ñi lay ndokkeel bu baax a baax di gërëm Eh, di jaajëfal bu baax mbokk yi nga xam ne ñoo ñu doon gunge ci jataay bi ak mbokku téléspectateurs yi fu ngeen man di nekk ci àddina télévision Futurs média mi ngi leen di ñaanal màggalug jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf